plainte ONG Jamra tey jii nag daal di nañu ci àddu Sénégal daal di nay censuré série infidèle bi ak ginnaaw plainte bi nga xam ne nag Jamra tegoon na ko ci conseil national de régularisation de l'audiovisuel du Sénégal daal di ñuy jël ak décision tey jii ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum juillet ñuy wax nag ne télévision boo xam ne teg nga boobule bande annonce saison 3 bu infidèle ni ñu ko wone as lëf ci internet jël ay daan teg ko ci sa kaw ci bataaxal bi nga xam ne nag Sénégal daal nañu koy jébbal interdire nañu télévision mu daal di rek diffuser bande annonce euh, saison 3 bu infidèle ginnaaw ni ñu ko wone euh, tuuti rek ci internet bi le ndax jàpp nañu ne loolee dafa am ay pratiques sexuelles yoo xam ne rek daal di dëppawul ak suñu nekkin dem nañu sax bay wax ne am na incitation à la débauche wala sax encouragement ngir rek nit ñi def wàllum sëy wala pornographie wala sax prostitution euh, non respect nag bu présente décision boobule ñu ngi wax ne képp koo xam ne rek teggi nga ko ay daan dinañu ko teg sa kaw te ñu ngi ko jëlee eh, ci loi numéro 2006 eh, bu 4 eh, janvier 2006 portant création bu CNRA ak it loi bi di numéro 2017 27 bu 13 juillet 2017 portant code de la presse kon ndogal bi daal dinay tab bi série infidèle daal dinañu koy censuré ci jamono ji ngi wax ak yéen